bis bu màgg bi nga xam ne ñu ngi koy waajal yoonu murit di ko waajal lislaam gi yëpp di ko waajal rawatina Thiès muy màggalu Muhammadul Mahdiyu Abdullahil Yaqinul Mubarak di war a doon ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru gàmm waaye di dëppoo ak mardi 25 octobre 2022 fii si Thiès bu nekk bis bu rëy bis boo xam ni képp koo xam ni dégg nga sabab bi di nga xam ni sa bis la ndax njotu mbindeef yi yëpp la woon waaw kon si fàttali rek ni ma ko sëñ Babacar waxee si 1941 ku tedd ki tëdd fii si la sa borom yabal si moom ndaw xamal ko ni ko day am balaa bu màgg bu màgg màgg màgg boo xam ni day wàcc si kaw suuf te balaa boobu su wàccee nag ñëpp lay dal te comme dal doo mucc mu daal di ñaan boromam ngir ñeewante gi nga xam ne ñeewante na ko mbindeef yi ni ko li nga nar a teg mbindeef yëpp nag ma ko teg man képp te ñëpp mucc ah bi borom daal di juboo ak moom si loolu nag si lañ jël natt bi daal ko koy teg biñ ko tegee natt bi yàlla waxoon na ko ni ko nag boo demee ba sentir ni diis na ba ma dégg ni o oh, mboolem lu ma jaayante woon a yow dinaa ko xaj te du ma yem si xaj ko mbooleem ñi nga garanti woon ñëpp dama leen di yóbbu sawara mu daal di nangu kon responsabilité bu diis la gàddu woon gàddu la ko woon cees rek gàddu la ko woon Sénégal gàddu la ko woon yoonu murit waaye mboolem mbindeef yi yëpp yu nekk ci kaw suuf kon loolu dafa nekk njot goo xam ni képp ku dund ci kaw suuf yaa ngi ci biir bi nga xamee ne nag xabaar na ko njabootam tëdd na ko ñaari weer ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett loolu lépp ci weeru gàmm bi nga xamee ni dem nañ ba guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar di jàpp ñaar fukki fan juróom-ñett sa mi ko xabaaro natt bi mu del siwaat daal di yabal ndaw ni ko sa borom nee na bis ni ko tey lim la teg lim la tegoon mat na kon bi mu yeewoo nag di ñaar fukk ak juróom-ñett moo dëppoo ak bis bi ñuy jëm di ko màggal muy le cinq octobre dëppoo ak ñaar fukk ak juróom-ñett si weeru olof ah, si la dénk nag njabootam daañu leen bis ni ki tey yàlla jox na leen bis ku mu fekkati si kaw suuf loo mën ak loo mënul na ko ci def daan yandal naa leen seenub nattu seen màggala keroog lu nekk rey na ko si ay xeetu mala maanaam di biggal doomu aadama yëpp te jëm yàlla tax ak li ko yàlla teggal bis bi. man ñu ngi si juróom ñetti fukki at ak ñaar kon loolu daanaka mi ngi bëgg am ay bis moom nag def na ko 1941 sa déwén sa mu tollanti ko 1942 si 1943 si la wuyu ji boromam. ku tedd ki Mouhamadou Abdoulaye El Yaqin Moubarak ba mu fa jógee nag magam ah, doomam ji tedd ji di soxna Maguette Abdou Aydara daal koy jël 43 ba 2003 si la rakam ju baax ji ñëw soxna Saybata Aydara daal di gën a yokk mbir yi tey ji gis nañu dimension bi ak ampleur bi nga xam ne màggal gi am na ko ah, di ñaan yàlla gën ko yàggal suñu kanam. sunu murit mooy maam Cheikh Ibrahima Fall xalilullahi babul muridin ah, kon Cheikh Ibra nee na moom la ko sa borom boole loon ndax yoon wu njëkk wa si déggin ne na ñoo àndoon moo tax yoonu ñaareel bi sa borom boolewaat leen. waaw ah, loolu la alxuraan di junj loolu alxuraan di wax milatu Ibrahim loolu Cheikh Ibrahima moo ko symbolisé tey jii si yoonu murit muy ñàkk julli ñàkk woor ñàkk sàkk ah, asaka ñàkk jàng alxuraan te léppam tege si liggéey ak joxe. Ah, yàlla def na état dugg na si <coughs> ay ate ate ngi am nañu CRD bi passé donc le gouverneur de Thiès Alioune Badara Mbengue moo yabal adjoint mu présider ko. ak mboolem chef de service yi ñu ko seqal yëpp biñ defee jataay bi kenn ku nekk si ñoom nag euh, jaayante nga si li nga xam ni moom nga war a taxawee si bis bi. si euh, biir jaayante boobu nag am nañ si loo xam ni lu lu sedd euh, am nañ si lu sedd dinañ defal nag mention spéciale si Senelec waa Senelec am nañ taxawaay bu am solo si bis bi ndax gis nañ chaque année jumtuwaay yi nga xam ni dinañ koy indi fii si wàllu éclairage dañ koy yokk. la ak mboolem branchement provisoire yi kon ñu ngi leen di beral ñoom it mention boo xam ne spéciale waa Sen'Eau aussi waa Sen'Eau waaw ñoom tam ñu ngi si yoon bi ñu ngi dikk lépp loo xam ne dañu ko promettre ñu ngi koy def ndànk-ndànk waaw ONAS aussi ñu ngi leen di sant bu baax waaw ndax ren jox nañu quatre camions camions yi am nañ fi ñetti fan di vider mboolem quartier bi yëpp waaw di sàkku tamit maanaam loolu su gën a mën a dolli ko parce que boo xam ne vingt mille habitants la bokkul ak invité yi nga xam ne ñu ngi leen di war a xaar ñu war a jóge fu nekk ci su région bi diaspora bi ah, di ñaan rek ONAS ñu gën a yokk seen jéego waaye ñu ngi leen di sant nag ci seen taxawaay yàlla gën a barkeel kër gi waaw hydraulique tamit ñu ngi koy séentu bon tey mairie Thiès Est bu Ousmane Diagne maître Ousmane Diagne bon def na un geste andi na fi ñaari charge latérite ak euh, suuf si mi ngi war a ñëw suba Ageroute tamit ñu ngi leen defal mention spéciale si appui en carburant bi nga xam ne defal nañu ko ba noppi tamit andil ñu war ñoo indil suuf su takku waaw waa UCG madame Ka waaw ñoom it seen taxawaay nekk na lu am solo suba la ñu war a tàmbali seen opération de nettoyage fii si avenue bi ak lépp loo xam ne wër na xabru Cheikh Abdoulaye Yakhine waaw kon si gàttal daal ñoom chef service yi yëpp la jaayante woon ñu ngi siy def ndànk-ndànk. ñëw nañu bi ñu dikkee ñoom it. <laughs> yàlla def na seen doole bëriwul noonu ndax fukki kër rek lañ pompé waaw seen moyen bëriwul donc ñu ngi lancé appel au gouverneur de Thiès mu defal leen appui ñoom waa service d'hygiène bon euh, santé muy district sanitaire donc de Thiès ak médical taxaw nañ tamit ren taxawaay bu am solo ndax dotation bi nga xam ni moom la ñu doon jox chaque année mu jëm ci médicament yi ren yokk nañ ko considérablement ci ñaata ci ñaata waaw xamaguñu xayma gi xam naa ñoom euh, ginnaaw suba lañ far a ñëw indil ñu kayit waaye euh, si li nga xam ne jot nañ ko dégg si ñoom ne nañ yokk nañ ko yokk goo xam ne am na solo lool. ba noppi dinañ indi personnel médical bu qualifié boo xam ñooy appuyer poste de santé bi indi tamit ambulance boo xam dafi nekk en permanence ak euh, benn antenne boo xam pour vaccination contre Covid 19 bi. waaw yooyu yëpp ay avancées yu am solo la yoo xam ni waaw ñu ngi leen si remercier bu baax. ndax lu si ëpp si waa dañ naan seen gàmm gi waaw gàmm bu ñuy wax gàmm mooy màggal guddi gi nga xam ne si la Muhammad Rasulullahi ganee jamono loolu moo tax ñu naan gàmm ku tedd ki bi mu génnee si natt bi dañuy màggal laa mu ñëw mu tedd ba màggal la wax yandul naa leen seenu nattu seen màggal kon màggal gam wax loolu mooy barke bi waaw kon nag ñëpp nañ maase ndax <laughs> on ne peut pas être waaw moom mii nga xam ni lépp si moom la wàccoon mu wax te wamaa ko anil hawa du waxee bakkanam moo ni lii màggal la mu jublu si nag sant yàlla suñu borom subhanahu wa si natt boo xam ni ah, bu ko bàyyi woon mu jàll amaana ñun ñu ñëpp kenn du fi des. léegi nag la si njëkk mooy alxuraanul karim waaw bu ñu xëyee suba nañu wàcce ay kaamil yu takkoo takkoo takk defal ko ko hëddiya ak mboolem njabootam mboolem sàmbatul kiraam yi tëdd bàq ya defal ko si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maam Cheikh Ibrahima Fall ak gaañu baax ñi ak jullit yëpp xasida yi tamit ak turu yàlla wi noonu lañ ko fas yéene màggale fii ak bernde bi waaw ndax euh, euh, màggal gi bernde la tamit ñi nga xam ne ñi ngi fi ñëw ñu lel leen ba seen xol sedd si lekk ak naan waaye tamit ku si nekk nag nga yor sa kurus fa nga nekk ndax bis la boo xam ni euh, li fi wàcc si gaañu baax kenn xamul lu mu toll si misaal dama la fi ma sañ yamono yow mën naa wax ni mbooleem li ëxli sama ñoom ñëpp dañuy wàcc ñu tëj jinne ak malayka ñëpp dañuy wàcc si pàkk bu sell bii kon bis la boo xam ni bisu pajuk aajo la bépp aajo bu jaaxal lu mu rëy rëy rëy rëy nga ñëw fii si màggal gi boo ko diisee dina faju waaw kon nag dafay day day bisu promotion boo xam ni képp ku ko xam doo ko caaxaane kon nii nañ ko fas yéene màggali lépp nag tegu si sunna bis bi tamit soxna Saybat Aydara mi nga xam ne mooy kilifa gi da ko dara jaalee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak maam Cheikh Ibrahima Fall Khalilullah Babul Mouridine ndax waajur mu tedd wa bi mu ñëwee saw jant ñoom ñaar ñii da fekk si li ko Cheikh Ibrahima waxoon ni ko gërëm gu ñu yàlla gërëm man ak sëñ Bamba moom lañ sama borom fayee sa jëmm ci. mairie ville déposé ko foofu lañ sa def nag mooy mboolem doléance yi nga xam ni mairie ville daan na ko taxawee bis bi doyatul dem nañ ba këram donc euh, moom monsieur Babacar Diop waxtaan ak moom si bis bi wax lu ñu bëgg. waaw ah, ñu ngi toog nag di ko déglu waaye boobaak léegi gisaguñu dara loo xam ni lu bàyyi ko fi moom wala si mairie ville ñëw fii si bés bi waaw te jàpp naa ni ndax bi muy bi muy bëgg bi muy bëgg bi muy bëgg mairie dafa ñëw ba fii gaare otoom benn oto la indi bi mu ñëwee soxna si boppam moo ma jox ndigal ni ma fa ma toogaloon Macky Sall ba mu falu yóbbul ma kër Diop mii nga tegal ko mu toog foofu ma jàpp si loxoom ba si biir barab bi ne ko toogal fii ñaanal fii ba mu mat ma daal ko yóbbuwaat soxna si waaw ba ma ko yóbbee mu ne ma def nga loolu ma ne ko def naa loolu mu ñaanal ko sama borom daal koy seppi tey ji mu nekk maire de la ville de Thiès maître Ousmane Diagne ko noonu la demee liñ ko gën a téye bi mu tegee fii tànkam dani su faloo maire Thiès es maggal gi dina ko yóbbu si beneen niveau loolu ñuy wax tourisme religieux dina ko exploité maanaam dina am yeneen taxawaay yu màgg yoo xam ne dina ko taxawee si bis bi waa ñoom ñaar ñëpp dugg nañ fii te ñoom ñaar ñëpp yàlla defal na tey ñu yor ay ndomba tànk yu mag waaw kon defe naa ne lañ jaayante woon du ñun lañ ko jaayante woon waaye ku tedd ki lañ ko jaayante woon waaw nañ fexe rek ñu matal ko bu ko defee seen mbir lépp dina gën a dox waaw muy kër Diop di Ousmane Diagne ak yeneen maire yëpp dañ leen interpellé ndax Thiès moom ñëpp ñoo bokk waaw ñun bàyyi wuñ kenn dem nañ Thiès noor dem nañ Thiès ouest ndax bis bi mboolem entité yëpp moom la ëmb